sëñ bi Ansoumana Sané ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant Gomis. yow yaay secrétaire général bu Lima AIBD Suma nekkit responsable politique APR ca Bignona rawatina ca commune bu Sindian euh, déjà wax ñu lan mooy Lima AIBD Suma ak yow euh, sa mission ci boobule kuréel mooy lan. waaw Lima AIBD Suma mooy société bi nga xamante ne ni moom la ñu jox wàll doxal wàllu ñoŋal. mais wàllu aar lii di aéroport international Blaise Diagne dafa am lëkkaloo bi am entre état du Sénégal ak Turquie ñi nga xamante ni nii ñoo yeggali aéroport bi état du Sénégal à travers société bi ñu naan AIBD am trente quatre pour cent ci Paris Lima am trente trois pour cent Suma am trente trois pour cent ñooñu ñoo yore exploitation bi man suma suma suma suma cër ci mbir mi mooy euh, en tant que représentant état au Sénégal en tant que détenteur de euh, en tout cas la confiance du président de la République teg si ma ndodd ma jéem a fexe ak ñun ñu fa nekk ñëpp pour que aéroport bi doon aéroport bu mucc ayib pour que aéroport bi doon aéroport boo xamante ni nii ci sous région bi Sénégal mooy euh, doon aéroport bu gën a am doole Sénégal mooy doon destination boo xam ne ku nekk boo jugee sa dëkk foofu ngay nam ma dem parce que nga xamante ni aéroport bi méngoog nag aéroport yu gën a mag a mag a mag a mag ci monde bi loolu mooy suñu wareef moom lañ fa nekkee ko euh, ci biir euh, société bi vraiment di fexe pour que la nga xamante ne nii moom la ñu tënk ci biir contrat de concession bi ñu fexe ba loolee ñu mën koo doxal ba Sénégalais yëpp xam nañu président de la République soxla na Sénégal doon mais nga xamante ne nii ci aéroport bi nga xamante ne képp ku ñëw moom moom mooy njëkk a doon bërëb bi lay dalal mu doon aéroport boo xam ne ku fa ko di nga xamante ne ni euh, vraiment fii dugal nañ fi alal te boobu ni fi dugal mu ngi andi ay résultats. AIBD boobu solo si mu am ci xeex mbasum Covid 19 bi ndax ku wax kaa importé lu bëri xel yi fa lay jëm est-ce que ba ñu teggee fii état de catastrophe sanitaire bi am na ay jumtukaay wala matukaay yu yees yi ngeen jël. waaw balaa sax euh, ñuy teggi euh, état de catastrophe sanitaire bi boo leen xoolee ci communiqué ministère de euh, la santé et de l'action sociale di ngeen gis ni ki cas importé yi da am demoon na sax ba disparaître pour ne pas dire disparaître na totalement parce que flux yi moom day ñëw chaque jour. Hmm. cas importé yooyu boo xoolee bi dañ ko stoppé di nga xamante ni ay mesures jël nañ ko ak compagnie aérienne yi pour que. ku nekk dëkk ba ngay jóge pour ñëw Sénégal nga sàmmanteeg li protocole sanitaire bi wax maanaam nga vacciné wu mais en plus de cela aussi ñu xool ba xam yow sa yaram amul température bi nga xamante ne dina andi jiixi jaaxa ba xam yor nga jàngoro googee ak déet mais boo ñëwee ba wàcc tamit ci Sénégal am na protocole sanitaire bu ñu définir à l'aéroport danañ xool sa température danañ ko xoolaat danañ ko settantal danañ la jox masque bu fekkee yoruloo ko mais dinañ la jox aussi gel nga koy laal saa su ne mais ci biir aéroport bi war nañu ay ay ay points yoo xamante ne ñiy dugg si côté bii la ñuy jaar ñuy génn côté bii la ñuy jaar te ñiy nekk ci biir aéroport bi tam dañuy euh, dañuy sàmmoon rek ñuy wax distanciation sociale dañuy sorante ñoom ñëpp seen biir. Hmm. mais boo xoolee ci biir aéroport ña daan ñëw pour gatandu seen i gan dañ daan dugg ci biir moom mooy nu mu tuddati euh, fu ñu naan place des accompagnants. ña doon gunge tamit seen i nit dañ daan dugg ba ci biir aéroport ñu gis ni loolu dafay andi rassemblement loolu ci ba ci lañ ko teg donc boo ñëwee. Euh, nga am da ngay euh, euh, jël ci sa gan wala da nga koy yóbbu ci biti ngay des moom mu dugg ci biir pour bañ rassemblement boobee ñu am yeneen mesures yoo xam ne vraiment teg nañ ko ci biir pour que tey AIBD doon nga xam ne zone neutre d'ailleurs mën naa wax ni ñu ngi préparer li nga xamante ne bii mooy vaccination bi pour que personnel aéroportuaire bi prestataires yi fa nekk ñëpp ñi xam ne ñoom ñooy évoluer mën naan les acteurs du système aéroportuaire ñu mën a aussi am ci njaqu joojee parce que aéroport aussi dafa war a doon aéroport boo xam ne zone neutre lay doon du am benn contamination boo xam ne nii non seulement ñi ñëw dinañ ko andi mais ñi fay nekk di liggéey lëkkaloo seen biir itam du am kenn koo xam ne dina tere na jàngoro loolu ñi ñëw nag ci actualité bi nga xamante ne bi mujj jamono ci mooy li xew ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru muy jàmmarloo yu métti diggante étudiant ñu ci tudd kékkandoo ak ñii di waa nga bokkoon ci kékkandoo boobu ñu bëri eh, di ko méngale ak kuréel bi ëmb étudiant Joola ndax mën nga ñu indi firnde ci loolu waaw kékkandoo d'abord <laughs> ku xam géejandoo da nga war a xam ni du du du étudiant joolaay ñoo ko ñoo ko nekk wala ñoo ko moom géejandoo hmm. euh, benn association la boo xam ne Casamance yëpp la la la la la ëmboon hmm. mais aussi euh, ña nekkul Casamance sax ñu ci bëri euh, bokkoon nañ ci géejandoo parce que association culturelle la à la base association culturelle la au delà de hmm. vraiment ñi bañ ko jox maanaam réputation biñ ko biñ ko jox mais Euh, li ma mën a wax ci ci ci coow loolee euh, ba ma déggee coow li aussi dem naa euh, ndégganteeg ña fa ne pour xam la wundu loole parce que ku xam séeréer diggante séeréer ak joola wala diggante séeréer ak waa ak Casamance di nga xamante ni daara rek warul ñaaw suñu diggante parce que loolu suñu maam yi ñoo ko liggéey ñoo ko liggéey te ñun dañoo am devoir pour loole ñu gën ko rafetal gën ko ñoŋal donc lañ xamal mooy ñaari coow la woon bi bi boo xam ne ñaari góor ñoo ko sekkoon ñoo ko sekkoon am na ay weer ca gannaaw loolu démb euh, ña ko sekkoon daay daje daje boobee waxtaan daal di jóg seen biir dañuy jóg mu daal di indi euh, euh, jaxasoo jaxasoo boobee moo andi situation bi mais la ma ci mën a wax mooy vraiment am na ay ay anciens yi nga xam ne ñoo ko nekkoon ñu mag yoo xam ne dugg nañ ci biir université bi pour wax ak xale yi pour que ñu mën a dal jàmm daal di dellusiwaat ñun tamit lu ñu war mooy dinañu ci fa ay fan yu néew vraiment dugg ci biir université bi wax ak xale yi wax ak ñoom ñëpp pour ñu xam ni euh, ñun ñëpp dañoo war a euh, daal daal fexe pour que euh, lii nga xamante ne nii mooy diggante yi yàlla def bi suñu maam yi liggéey pour diggante séeréer ak ña dëkk Casamance vraiment foo kenn jaxase muy université ak fépp ci kon nekkul affaire ethnicisme maanaam diggante ay xeet non loolu xëy gis naa ci Facebook bi wala ci yenn site yoo xam ne euh, daal di nañ koy reprendre de la sorte mais may profiter rek ci kàddu gi ñu ma jox mhm. pour rappeler bi ci journaliste dafa war di dem ci information parce que journaliste bi ci dëkk dafa am solo le droit à l'information daf leen war a obligé ñu dem pour joxe la bon information ñu dem à la source toog sa bureau dégg lu tell rek nga ne damm ne loolu du yëfi journal yaakaar naa journal si boppam war ñoo dàq lépp loo xamante ne ni buñ ko waxee dana andi luy taal réew jël information bi mel ni nga xamante ne ñaar nit ñoo doon xuloo mbir mi jëm kaw ay seen morom dugg ci ñu jaxasoolu ak mbir mi daal demee ni bu ko booleeg affaire ethnicisme wax dëgg fa yàlla jàpp man jàpp ma ni Euh, traitement bu baax la boo xam ne journaliste war nañ ko def ci ci wàllu woowee. Mhm, mhm, mais mhm. daf may permettre ma glisser vraiment ci beneen sujet boo xamante ne nii seen mbokk journaliste moo def benn production intellectuelle boo xam ne yéen ñuy journaliste condamné ngeen ko. société civile bi condamné ko mais Sénégalais yëpp ak ba tout bord commencé d' abord ci ñoo xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall na ñu wax jooju nga xam ne daal dina koy wax bind ko xaatim ko daal di koy daal di koy fësal euh, loolu daal vraiment. Euh, ñu koy ñu koy ñu koy ñaaw du ñaan acteurs yëpp nga xamante ne kujje gi ñii ñi pol homme politique yi ñii di société civile ñii di journaliste ak bépp sénégalais foo mënti nekk ak foo mënti féetee vraiment kaddu bi jëfin gi ak defin bi ñu xoolaat ko daal di rafetal mbir mi parce que Sénégal suñu Sénégal la benn bopp la te kenn koo hmm. ci mbir moomu xam naa ni yaa ngi euh, bëgg a euh, tudd euh, chronique bu Madiambal Diagne gis nañu ni lu ko jiitu sax ministre bu ñu dénk wàllub yoon tamit yëkkati na ay kaddu ba xëy na ñu bëri jàpp ni daf ci attaque waa Casamance loolu kaddu yooyu yëpp est-ce que jàppoon ni tamit du wàññi doole bennoo ci Casamance. non gaw ma ni ki euh, vraiment kàddu yooyu dina wax wàññi euh, doole yi benn ci Casamance parce que tamit euh, waa Casamance ay nit yu changé nañ te xam nañ ko te dinañ xam vraiment faire la différence ak ñoo xamante ne dañuy wax seen waa waxi bopp ñoom waxuñu au nom de notre parti waxuñu au nom du président de la république seen xalaat lañ joxe te seen xalaat ñëpp ñaawlu nañ ko te wax nañ seen position ni fi li ñuy wax teguñu ko fenn Euh, fii Benno Bokk Yaakaar fii ci Casamance waxuma sax ci Casamance mais fii ci région wu Ziguinchor ñun responsable politique nga xam ne ñoo fi teewal président de la république suñu wareef ñu ngi koy def dinañ continuer di ko def suñu wareef mooy di continuer di wax ak askan bi pour que ñu xam ne président de la république président dafa bëgg Casamance président de la république dafa fonk Casamance président de la république dafa bëgg Casamance daal développé wu boo xoolee ci wàllu yoon lañ fa def depuis 2012 ba léegi ba ba ba jamono jii ñuy wax ak yow pont de la Sénégal bi nga xam ne pont physique la mais aussi pont économique la da ngay jógee Dakar ñëw añee Casamance boo jëlee bato bi cinq mille francs ngay fay te ñetti bato la te ñetti bato yooyu am na ñaar yéen jàmmoon la tudd donc vraiment euh, tey yàlla mu ngi woon ni ki lien sacré yooyu dañ ko war di préserver bu ñu demee ba jël ñaari bato benn bi tuddee ko àjjana benn bi tuddee ko àjàmboon loolu may wane ni ki euh, léegi boobu dañoo am responsabilité daal di koy maintenir mais bu weesoo loolu boo ñëwee ci avion yi ay jamono booy jugee Dakar pour ñëw soo foo amul cent quarante mille franc doo def en tout cas doo dem doo dem doo dikk maanaam aller retour bi doo ko mën a am mais bu président Macky Sall ñëwee bu léegi boo amee soixante cinq mille nga dem def aller retour selon période bi ngay bi bi ngay def sa sa sa réservation mais loolu bokk na ci désenclavement Casamance mais le désenclavement interne président de la République vraiment boo duggee ci biir Casamance foo foo foo fa amul woon tali def na fa tali foo xam ne rang-rang la woon président de def na fa ay piste yoo xam ne da nga mën a daw ñi ñi génnee seen marchandise andi ko ci les grands axes boo xoolee ci wàll électrification rurale ay villages yu ñu ngi leen boo xoolee ci wàll euh, infrastructure sociale de base maanaam ay poste de santé ay ambulance ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay construction salle de classe nga xam ni président de la République def na ay jéego yu mag a mag a mag mag a mag ci développement Casamance loolu ñun la ñuy jël won ko askan gi wonaat leen ko pour ñu xam ni président de la république dafa Casamance te loolu nag ku la ko won dama laa bëgg danga koy won ni ki maa la raw te xam naa ni président de la république dina gis ni population Casamance dinañ ko won ni ki maa la raw surtout la région de Sénégal. Ah, waaw mais élection yu weesu moom joŋante la woon te joŋante bu nekk dafay ànd ak réalité ak context bi la koy la la mooy déterminer résultat yooyu te ñun ñëpp jarul dellu si xam nañ la taxoon contre performance boobee am mais dina am ay jongante yu ñëw te leen woon ni jongante yooyu ne président de la république encore reste majoritaire dans la jongante yi di ñëw bokk na ci élection locale yi nga xamante ne xamaguñu sax kañ lay doon li am ba am nee nañu daañu ko taxal ndaxte adopté nañu projet de loi bi ci conseil des ministres bi wees yow ca gox bi nga nekk muy Sindian ba Sagna mi ko jiite ngay faral di ko attaqué bu yàggul dara fekki na Ousmane Sonko lan nga yaakaar ni mën nga ko def kon ci diggante bi ndax am bi lu baax la ngir yéen. waaw report bi en fait man du ma ci du ma ci du ma ci mën a prononcé wu loolu acteur yi nga xamante ne nii ñoom euh, ñu ngi ci ku jéewu liñ naan en tout cas commission de dialogue politique ñoo ngi ciy liggéey euh, gouvernement bi tamit euh, li ko war mu ngi koy def bés bu jotee rek dinañ ñu wax kañ la def élection yi mais ñun bu ñu newoon suba suba suba la ñuy def élection locale pare nañu lu tax ñu pare mooy dañoo yàgg xam ni Sindia commune bi ku ñu jox mairie bi yelloowu ko munu ko doxewu ko taxawu ko depuis deux mille quatorze ba léegi amul benn bilan boo xam ne nit mun na taxaw ne lii ak lii ak lii def na ko fa lu dul transhumé de gauche à droite jóge ca mouvement am dal ca bennoo jóge ca bennoo dal ca Pastef jóge ca Pastef dellu si waat ci majorité présidentielle jóge ca majorité présidentielle daal di dellu ci Pastef taxawaay boobu nag ku ko am nag nit ñi war nañ mun a taxaw xoolaat say mbir nit da am conviction nit da ngay am taxawaay nit da ngay am vision nit da ngay dëggu mais nit koo xam ne tey yaa nga sa fii suba yaa nga ca fële gannaaw suba yaa nga ca ma tepp ma ma ma paate gannaawaat suba yaa nga ca ma demba vraiment kooku population bi war nañ xoolaat tey mbir te moom xam na ne euh, tey fu mu toog nii ni ki Sindia dans son écrasante majorité mooy commune fas yéene jéeg yéene maire bi ci loxoom teg ko ci sumay loxo ma diriger ko comme population bi nu mu ko soxlaa te incha allahu rabi di ngeen gis avec le cerveau collectif bu ñu nekk di former ni ki taxaw nañ kenn pour que Sindia ñu mën koo doxal parce que nag def nañu léegi fu mu ne nii presque neuf ans yoo xam ne c'est des neuf ans investissement à perte teg nañ suñu confiance ci benn nit boo xam ne yelloo ko mérité wu. na Sané kon ngay responsable politique ca Bignona nekkit secretaire général bu Lima AIBD Suma ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité. maa ngi lay sant bu baax a baax a baax mon frère :fra Gomis di rafetlu tamit invitation :fra bi